Euh, fas yéene def li nga xam ne moom mooy annonce bu mag bile ci wàccaayu liggéey bi nga xam ne dañ koo sasoo muy waañu Cheikh Ahmadul Khadim euh, bi ñu war a def fi nga xam ne moom mooy euh, fële ca Touba loolee nag ñu ànd ceeg ki nga xam ne moom mooy coordinatrice bi nekk jëwrin bi ànd ceeg ki nga xam ne moom mooy soxna Ndey Sadio Wade ci loole aussi ñu ànd ceeg keneen koo xam ne daanaka mu ngi fii soxna Nogay Fall xool moomee nag soxna Nogay xool moomee nag daanaka ñoom ñett ñu nekk li nga xam ne ñoom ñooy piloté li nga xam ne moom mooy liggéey bi euh, ci loolee nag dañuy jox ki nga xam ne moom mooy jëwrin euh, mu gën leen a expliquer li nga xam ne moom mooy liggéey bi léegi léegi lay doon jàngeen jëf ngeen jëf asubillah mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi lay salaatu wa salaam di sant seexul xadim bu baax a baax sant suñu ñaari waajur euh, di woo rek waa kees waa àddina wërngal képp sax ci bis bu mag bi nga xam ne ci lañ jëm ñun jigéenu bàmba yi euh, suñu yéene ak suñu ite mooy jàppale mun Mountakha Bassir ci université bu Touba bi muy defar jigéenu bàmba yi nag boo ko déggee mooy ñi xamante ne ñoon ñooy femme engagée fa seen jàppale Serigne Mountakha université bi fi ñu koy jàppale mooy restaurant université ba ñun jigéen ñun jigéen ñoo fa seen defar ko ci Touba Mbacké ñun ñi ci woo nag képp ku nekk ci dëkk bi rek du ci woo Murid Tidiane Xaadir Laayeen képp koy wax asadu an laa la daal ñu ngi la woo ci bis bu mag bi ñu jëm le 3 août promenade de Thiès bi incha allah bu 4 heures jotee ci ngoon di ci woo ñëpp rek képp ku ci dëkk bi rek daal ñu kenn ñu tamit dara li waaye am te man ko daal ndax sëñ bi kat na la ko boppam waaye nag yéen ñëpp jariñu ci rek moo tax ñu bëgg koo yaatal ba kenn ku nekk rek lu waaye am rek jàppale ñu ko si ñu boole ko jàppale ko sëriñ bi ndax jàppale ko jàppale suñu bopp la di ñëpp nag macha allah di ko ànd ak sama doom ndey soxna Sadio Wade ak soxna Roqaye Gueye ak suñu góor ñu baax ñi nga xamante ne ñu ngi ndax yëf yi jigéen ak góor ñëpp a ko bokk defal suñu bopp la rek nag macha allah jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani rahiim ah, maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar jërëjëf jëwrin ah, li nga wax ah, am na solo foofu la ñuy tàmbalee rek ñun jigéenu Bamba yi nga xamante ni ñoo féetewoo fii ci Thiès sëñ Mountakha Bachir sas ñu université ba nga xamante ni moo nekk ca Touba Mbacké muy waañ wa nekk ci 89 millions ci diiru ñaari at. ñu ciy jaayante nag boobu ba léegi suñu jëwriñ ba nekk Touba war ñëw nag fii Thiès feggoog ñun ñu woowaa waa gépp muy murit ah du ñu limtur ndax dañuy woo ñëpp waaw ñu woo leen yéen ñëpp ngeen ñëw ñu bokk suñu journée bi jaayante ko ndax euh, Serigne Touba ndax Serigne Touba kat amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am kon nag mën nañ ko nag waaye dañoo bëgg rek ñëpp rek ñu ñëw kenn ku nekk dugal ci sa ñaq ah ñun ñepp ñu andando ko rek liggey ko wa kay jere ngeen jëf ñu ngi leen di wo yeen ñepp rek ñu ngi leen di wo auzubillahi billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani ngi nuyu wa senegal wa aduna ñepp di ñu setan ma ngi nuyu ñepp di leen nak yegal seenu bis bi ñuy def euh, la 3 août fi ci mairie bon nag ñu ngi leen ko yëgal yéen ñëpp bisu jaayante la suñu jëwriñ moom bu waxee ba pare sax ñun amatunu dara luñ ciy wax ndax moom wax na lépp daanaka waaye képp ku bokk ci jigéeni Bamba yi ñu ngi la siy woo te dal si sooñ ñu xam ne bis bi sa bis la ndax amuñu lu dul bis bii sëñ Mountakha Bassirou moo nu jox sas bi pour ñu defar waañ ba sa Tuubaa bon nag ñun mënuñu ko de waaye ñun ñu leen si tàllal seen loxo yéen ñëpp mboolem jullit ñu ngi leen si tàllal seen loxo yéen ñëpp pour ngeen jàpp si ndax ñun amuñu lu dul bis bii bon nag jaayante rek ñu ngi siy woo samay ñu ngi siy woo samay mbokk suñu xarit suñu am di jàmm suñu dëkkandoo waa kees ñëpp bàyyiwuñu kenn képp kuy jigéen góor mag ak ndaw ñu ngi la siy woo bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ñëpp nañ ñu wuy si jàppale ñu si bis bii ndax sañ tuubaakat amul tànki ginnaaw tànki kanam rekk la am te lu si waaye def rek di nga ko gis ndax moom jëf jël la jëf jël dong la bon nag ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu yegg seeg jàmm salaam dugg seeg bisimilah génn si alhamdulilah rabbil alamin ok merci beaucoup. yaakaar naa ne jërë ngeen jëf dégg ngeen li nga xam ne moom mooy bataaxal bile 89 eh, millions ci ñaari at du ay caaxaan eh, te dañuy faral di wax naa ne benn loxo du tàccu eh, te lu benn nit mën ñaari nit wala mbooloo sax moo ko ko dàq kon nag loole ñu ngi ciy woo képp koo xam ne autorité nga nekk ci li nga xam ne moom mooy cees ñu ngi lay woo ñu ngi woo daayira yëpp aussi daayira yëpp nga xam ne daanaka ñu ngi wekku yaakaar ci li nga xam ne moom mooy Serigne Touba Mbacké donc loolee nag mu nekk bataaxal nga xam ne jigéenu Bamba yi ñoom euh, la ñu teg seen loxo yéen waa cees yaakaar leen nag ci liggéey bi di leen séentu incha allah le 3 août ci incha allah fële ca promenade bu Thiès waaye kon nag bu ko kenn ute jaa ngeen jëf.